ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci terrain gaal gi góor production moo ñu fi woo mise bi deux millions cinq cent la lutte traditionnelle ndaanaan yëpp dinañ fi dajaloo waaye yegg si nañ léegi dañoo bëgg a xool sëñ Bas ci bunt bi yan ndaanaan ñooy dugg si ñan ñooy ñëw ñan ñooy bokk ci compétition bi ak kan moo koy jël tey fii lay xewee ci wasaare làmb ñun la ak yéen. dina neex dina yëngu salaamaaleykum. chef manager ndeysaan sëñ Bas am na champion buy ñëw ndeysaan biteel a ngi noonu béjjën a ngi noonu samp na béjjën ba njaab na dugg ci biir a ngi noonu ca bunt ba maa ngi koy seen ma nga nale yar na benn béjjënu kooba ñu ëyee ko benn morceau bu xonq dimanche ci heure bi am na ca lam ko fekkoon <laughs> cey làmb am na beneen champion buy dugg si. Ndeysaan am na beneen champion buy dugg si. mbër yaa ngay dugg. beneen champion ngi noonu. Ndeysaan champion yaa ngi noonu di dugg benn par benn. Sëñ Bas. Sëñ Bas beneen champion ngi noonu. Saan sotteeku na. këll la rëdd na rëddaat na rëddaat na dugg na ci biir ndeysaan góor production sëñ Bas yaa ngi dégg léegi ñu ngi lay annoncé ne la 64 mbët litre ñoo bindu ci wàllu luur bi 64 litre ñoo bindu ci wàllu lutte simple bi ndeysaan luur bi ak léger bi bu ne 64 litre la beneen champion ngi noonu di dugg si. ndeysaan maam lees maam lees maa lay maam lees maa lay ziar ñëw rek xool làmb ji. ah yéen dëgg la bëgg làmb. waaw maam lees looy def fii. yab saa ngi yab saa ngi yab saa. looy def ci buntu bi. yab saa ngi daa tardé damay jàppale organisateur bi rek jàppale mbër yi organiser leen kenn ku nekk ñaar ñi mu war a àndal. ma fexe bañ dugg tranquille waaw xam nga làmb ma ñor. man la rek entraîneur ci équipe ba la day am beneen feem bu muy yor. maanaam war naa teg mbër ci ko teg leen ci yoon waaw ñuy dugg normal bañ a xajamal bis bi jàmbur bi looloo ma tax a taxaw fii. ko ba mu taar. non ci laa dëkk man lu taaru laa xam. ki démb am na lu ñuy wax ne euh, Papa Sow dafa euh, créer écurie boppam waaye Franc mi nga xamante ni écurie parcelle mbooloo la nekkoon jóge na fa. dem ci Papa Sow. loolu moom de loolu moom da ngeen koy laaj Franc ba xam Franc moom it tare boo yoree mbër. <laughs> doomu ndeyam a ngi nii yëpp kii moom fu Fara jëm xam na ko. ana Fara kii kii ngeen koy laaj. kii de moom a ko mujjee gis barkeb alxuraanu karim yàlla seede na lool. bi mu jógee États-Unis ba léegi gisante nga. kii moom a ko mujjee gis la waaw li ma la waatee ba xam bi mu jógee ñëw na ci équipe ñëw na ci équipe saa ngi ñëw na ci xam nga bu baax li ma lay wax yaa ngi daw wax. non laaj leen ko kii man li nga may laaj gis naa yab sa yow yaay. entraîneur parcelle mbooloo ma laaj rek. ci François Émile Gomis da ngeen may tooñ da ngeen di dem Franc ngeen laaj ko parce que ay tënk-tënk ak préparer yaramam defar ci mën na koo téye parce que mbër mu ne da ngay am léeg ay feem. compétition bu am mu ngi ñëw. waaw mais day dem ci cumikaay gi ànd ak gis nga jinne jàng yi déggoo li ma ak ak garaaw. Ah, man de maam les maam les lii jaaxal na ma sëñ. tegal foofu sa loxo rek. danaa fa ñëw ñu waxtaan. sëñ Bas beneen mbër a ngi noonu. beneen champion gi noonu ndeysaan ñun ko mbër mu ne ñaar ngay àndal ci ay lamb Basiru mbër yaa nga noonu kii de ñaari galañ la yor bii ci loxo ndijoor bi téwe ci loxo càmmoñ ba ma ngay léemu di dugg tey lamb xolak tey lamb mbër ana min géey gi ah kon baax na làmba ngi noonu ndeysaan kooku champion la àndal min géey ki sëñ bas booy fayega loolu xool koog veer yi kaay jëlee ko booy fayega loolu xool koog veer yi xoolu li mu dugg see ci làmb ndeysaan marié gi noonu dimanche bii passé la doon takk soxna dimanche tay gis nga ko li mu dugg def ay veeram yu baax laa ngoon segooram sax benn benn xaw ma béjjël la seex xaw ma lu mu seex nii seex benn bu moom ci gémmiñ ga ma ngay wax di dugg ah mbëri daal macha allah ndeke marié daal boo ñëw ci làmb da ngay changé xoolal booy fay li mu dugg see ci làmb ma ngay wax ba de verre bay rey hey booy fay xale la boo xamante ni macha allah bàyyi leen ko xel ci làmb ndeysaan maam lees simina verre ndeysaan booy fay ngi noonu ndeysaan ndeysaan xool ko marié baa ngi noonu <laughs> waaw waaw takk jabar dimanche passé tey nga dugg si ci làmb def lu la neex waaw takk say biir marié daal am na solo ci mbër ndeysaan gis nga ko la baa ngi <laughs> ay waa ji cey làmb Yaxya Diop Yékini daa woote stade Caroline Faye bu Mbour barki démb mu ngi ko fekk macha allah xale bi doon takk soxna tey gis nga ko ñëw na dugg si yaakaaroon naa ni sax dana ñëw. Eh, xale baa nga noonu <laughs> tas yaakaar na tudd xale bii maa ko fekk jëli ko ndeysaan xale la boo xamante ni xale la waaye cey làmb bu dugg see nga xam ne du maye dara cey làmb xale baa ngoog <laughs> ngemm na sagar ya bees na tàq cey làmb ma ngay jàpp ma ngay jàpp xoolal ma mbër meek si événement bi xoolalam tee ca loxo ba socc ba ma ngay léemu tifli na raay ca kanam ga ma ngay léemuwaat dugg na cey làmb ña ngay léemu <laughs> léemu na dugg si ci compétition bi cey lamb ndeysaan beneen champion ngay dugg si ndeysaan xoolal la muy léemu léemu na raay taf ci kanam ga dugg na dem na xoolal kii boo ko gisee xam ne mbër la ndeysaan ma ngay leemu xoolal kee cey làmb làmb lépp a ñëw ndeysaan lamb ñëpp a ñëw làmb lépp a ñëw ndeysaan Fils de Batlan la ma ngay léemu ma ngay leemu ma ngay léemu ma ngay léemu ma ngay léemu of ci loxo ya yor na ñaari galañ tee bi ci loxo ndijoor bi tee bi ci loxo càmmoñ ba mbër ma dugg na cey laam ndeysaan am na beneen mbër buy dugg si leket la rango père maa lay ziar. maa lay gis benn booy bu dugg si léegi sol benn t-shirt ñu similoo ko ko dëppaloo lu xew. waaw lépp luy foto sëriñ wala terrain militaire wala course affaire lépp loo xam ne affaire sëriñ la bokk daal bokk ci làmb dañ koy tere c'est interdit waaw t-shirt am sëriñ wala course wala njël dañ koy tere ci làmb wala tenue militaire dañ koy tere ci làmb. dañ mbër mi wala kii seetaan. ak ñu ma ñëpp képp ku dugg ci géew bi rek waroo koo sol képp kuy dugg ci géew bi sol quoi c'est interdit. jaajëf kurus baat. ah ak kurus ci baat. ak kurus ci baat dañ koy tere xam nga yëpp affaire wu diine la bokku ci bokku ci làmb ji sëriñ bi bokku ci làmb ji mooy sol mooy sol tërëy mais pas kuy ànd mbër mooy sol wala mbër mooy sol tërëy moo nañu inter ko c'est interdit. kon ak ndomba baat dañ koy tere ci làmb. mooy njël bi. am na kurus. am na kurus am na njël. waaw ah, njël waaw dañ koy tere yëpp dañ koy tere parce que ndomba bi tamit mën nga xeex nit xam on seetaan mu mu poy la ci da lay gaañ moo tax ñu koy tere lépp ñu koy tere c'est interdit par la ok jaajëf jërëjëf jërëjëf. Tansi wala lu muy waaj papa baal ma ma ñëw lamb <laughs> daa tardé ndeysaan paka laa ngi noonu paka laa ngi nii ndeysaan ngi noonu paka ngi noonu sëñ Bas Libidor ngi noonu Libidoor a ngi noonu Pakala a ngi noonu beneen champion morso bu weex ca bopp ba ma ngay dugg rëdd na rëdd na dugg na beneen mbër a ngi noonu cey làmb cey làmb ay Libidoor ndeysaan defee xool defal loolu la ñett yi ñëw rek loolu ñett yi ñëw rek garaawul soo mën ma soo soo mën. waaw seen fii da ngeen ko war a pare quoi. waaw daf dangaa tardé. waaw damaa tardé de loolu la yàlla dogal xëy na du war sama du du sama wërsëg. doo bind. ah 64 personnes lañ bind moo tax. te xam nga rek règlement bi loolu la joxe. waaw ne laa ma yaa ngi suñu kanam lii ñëw moo ëpp. ah Libidor bëggoon nañ laa gis nga tooyal xaftaan bi. amul ben problème incha allah day tooy ndax mo tardé tey bu subaa du ma loolu de baax na léeg la bu tardé tey bu subaa du tardé Paka laa ngi noonu. le grand champion Paka la bu Mbour. <laughs> man reefa laa nekkoon <laughs> dama doon defaru rek. defaru ba tardé ba dix huit heures et quelque ngay doog a ñëw ci loolu xam nga la rek gars yi moo doon indi rek xam nga rek tamit sunu wërsëg si nekkul rek parce que ni bu sa wërsëg nekkul yàlla day mën da lay a tardé te doon koy nangu quoi xëy na du suñu wërsëg dañuy defarwaat rek waa jaraat xam ne laa ma yaa suñu kanam. ci mikaay waaw ci bugaay delloowaat naa ko Dakar mu ngi gërëm. waaw delloowaat naa ko quoi. sa kër ak fii tout près. moom doo ko daw sax cinq minutes. waa ndax xëy na du sa wërsëg daal. waa nag am naa sama benn point bu si rek dama ne ñaanu jël mu jël ko. waaw loolu la quoi. jaajëf incha allah merci waay. góor a soog booy ba wala ngi noonu. <laughs> ndeysaan. góor a gi loolu boo jiitu xoolal góor a ma ngay dugg ma ngay dugg bi paase moo finaalu moom ak pakala ay góor a sag grand champion xale baa ngi noonu ndeysaan dugg na ci compétition bi tey làmb ji dina neex bas caaka fay nga ne la may seen ci ginnaaw hee biram kunku nga ngi noonu jëlal ma biram <laughs> cey làmb mu ngi mu ngi mu ngi gëj ci ci compétition bi keroog bi mu jëlee Adrien Senghor mooy moom Biram Kunkung association des amateurs ba ñu tëggee mu final woon ak fils de Batlen fils de Batlen ñàkk boobu lañ ko gëj gis ci compétition moom moom Biram Kunkung mu ngi nii dellu si waat na tey ci événement wu góor production bi lu mu nar. est-ce que du yoon wi daa leer. dañ koy seetlu ba mu leer ñu doog a ñëw. waaw waaw. bu lëndamee ñu ne leen daal lëndam ñu ne bàyyi nañ. ñu bàyyi toog ay mbër yu mag lañ léegi xam nga boo tollee foo xam ne amatoo looy prouvé ci làmb jël rek la war da ngay leer leerlu bu leeree nga ñëw jël si te rarement ngay gis nag ñu leerlu ba pare te leerut xanaa cas force majeure am rek. kon de li ñuy waxal rëg-rëg naan day xool mu du leer. la muy ñàkk leer ci moom bari na de Reug Reug boobu diggante daaw ak ren moom wax dëgg compétition yi namm nañ ko surtout làmb simple. Reug Reug est-ce que mu ngi seet sax pour wàcc si yaakaaruma ko de. waaw parce que nag euh, boo xoolee mbëri esprit bi ñuy doxee dina tax nga xam fan mooy seen tolluwaay gis nga mbër mu ci dem ba commencé am dara ci lutte sans frappe bi boo duggee ci lutte avec frappe bi am ca dara rek da ngay mujjee négliger lutte sans frappe bi. nanga naa naa concentré wu ci sama carrière lutte avec frappe te boo xoolee mu ngi ci ñaari compétition yu différent mu ngi ci lutte avec frappe bi mu ngi aussi ci MMA bi te foofu yëpp def na fa ay performance donc loolu rek mën na tax mu ne léegi naa sàmm sama carrière ndax maa ngi teg samay mag bët bu ma continuer nekk ci mbapat yi yàlla tere yàlla tere bu ma benn gone daanee pour ma jotaat ñi nga xam ne ñoom laay laaj ci lutte avec frappe bi dana xaw a jafe mu téye boppam loolu mën na nekk mais nag yaakaaruma ne mu ngi mu ngi mu ngi bëgg a wàcc xalaatuma ko de. jàpp na ma ne Reug fi mu toll nii dina wàcc ci làmb simple ba. nga naan ma franc ay millions rek la bëgg Reug Reug teg nañ dix millions ñëwut teg nañ cinq million ñëwut teg nañ deux ñëwul teg nañ benn ñëwul teg nañ deux cinq cent ñëwut fi mu toll nii champion yaa ngi noonu caaka fay ngi noonu ndeysaan ma nga sol yére boo xam ne drapeau États-Unis moo ci nekk suñu dëkk ba sëñ Ba. waaw sunu dëkk baa ngoog. xëy waaw. dégg naa neex na de. dégg naa waaye Sénégal a dàq fépp sëñ Bas. ci mbay guy gi de laa ko déggee. mbay guy gi demul fenn xamul fu réew mi féete xamul fu attaché de féete. foofu pizza yaak. waaw. guy gi la wax wasaare boo fa tego ma nga fa tege. taaka fay noonu ma ngay tëf ma ngay dugg caaka fay ma ngay dem ndeysaan ndeysaan champion baa ngi noonu min géey ki ndeysaan xale la boo xamante ni moom it ci bëre simple bi mu ngi ciy def lu mucc ayib moom min géey ki moom laa seeti woon barki démb fekk ko ca Petersen muy liggéey tey gis nga ñëw na wàcc ci ci làmb ja làmb xëy la ndeysaan boo nekkee ci liggéey boo wàccee dem defi làmb cey làmb noonu ci compétition luur yi pakala bu mbuur moom ngeen woon ginnaaw taal naa taal naa pakala bu mbuur moo leen woon noonu ma nga ca compétition bi ba tey ndeysaan pakala jàpp na lu mu nar Pakala lu mu nar ëñ na bal na mu bañ Pakala mu yóotu cay làmb waaw yóotu na tànk ba dalay ëñ dalay daan Pakala daan na cay làmb ndeysaan ndeysaan daw nañ jël Fils de mu bañ jël nañ ko mu rëcc fañ la yeggoon sori na buñ la fa yeggaatee nga am lu la bett waaw waaw jëlaat na waaye da koo yëg Fils de Batling jël na tànk ba da yanu da koy dóor ci suuf dina ko daan wala daanu wër na ko ndomba lu mu da koy daan Fils de Batling daan na ko nee na ko jugal premier combat Biram Kung Kung ndeysaan mu ngi noonu ñu ko Caaka Fay moo leen wéete càmmoñ njombo ngemb lu ñuul le ma ngay lewaatoo bi mooy premier combat ci compétition bi ndeysaan ma ngay xoolante ci bët mooy biram kunkung mu nga bëgg a jàpp adversaire bi mu bañ jërëjëf yéen ñi safoo wasaare lamb gis nañ commentaire yi dinañ seeti seen champion wolof daf ne wàññi boo gis ci benn lay commencé champion bu ngeen gis ñu seeti ko rek wàññi leen mooy benn waaw dinañ ñëw ci seen champion yi def ko ak ñoom comme ni ngeen ko bëggee dooray wasaare lamb yéen la lépp lu ngeen bëgg noonu leen koy defee bu dem kunkung daan na ko ndaysaan Thiaka Faye daan na premier combat nañ Fils Batlen Libidor Fils ak Libidor ña nga ca combat bi Libidor moo leen féete càmmoñ Fils de Batlen moo leen féete ndijoor ña nga ca ba tey dara amagut song amagul dara amagul Libidor Fils de Batlel Libidor Fils de Batlel ndaw doo jëli ko jëli na Libidor mu bañ Caaka Fay wet yooyu jàpp na ci wet Caaka Fay am na wet Caaka am na wet Caaka lu mu nar am na wet am na wet da daan daan na ko Thiaka Faye daan na am ci ñaari victoire Fils de Batlen ak Libidor bi mooy seen deuxième combat ndeysaan Fils de Batlen ndeysaan am na ko ndomba am na ko ndomba sëñ Bas da daanu waaw waaw da ngay ba tey dara amul waaw waaw da daanu Fils de Baldé Libidor combat bi yàgg na yàgg na ba Libidor bañ na Fils de ko sees daan na ko Fils de daan na Libidor ña ngay caaka jàpp arbitre bi àtte na deux avertissement boo amaatee benn ñàkk sa combat taxawal caat biram kung kung mooy caaka fay mbokk yi ma nga noonu Caaka ngi yoot pour jàpp adversaire Caaka tas yaakaar fañ la yegg sori na tas yaakaar daan na xale la xel ci làmb barki démb ba yaxee Jóob yi ki ne wootee moom daa dem Kaolack jël ko ndeysaan daw na jël jël na day jaay dooleem déet Fils de Batlen jëli na ko ñëwaat nañ ci diggi géew bi Fils de Batlen ngi noonu cey làmb Fils de Batlen Fils de Batlen takk nañ ko takk lu mu nar ma ngay mbot joxe na wet wa joxe na wet wa Fils de Batlen mbas Fils de tas yaakaar daan na Fils de noonu moo ngem moo ngem li wala ginnaaw ñu ngi koy bëgg a war ndomb mu bañ tey làmb tas yaakaar ngi noonu xale <laughs> xale bu garaaw mooy tas yaakaar mi lu compétition bi di dem muy gën di tas yaakaaru xale yi moom tas yaakaar ndaysaan Mor Absa Deme la tudd turu làmbam mu tudd tas yaakaar ndaysaan Goro Sock jàppante na ba tey Gora Sock a ngi noonu takk na da koy biij wala déet Boy Faye mot na ko ndomba Boy Faye na ndomba yanu na door na ci suuf Boy Faye mu des Gora Sock ba ci compétition bi cey làmb nga jàppante ba tey ku ne di déglu sa morom Gora Sock moo leen won ginnaaw ngembo ñuul li sëñ Bas wàllu wee ndeysaan ndeysaan Gora Sock nga noonu Zongale bañ na bas wàllu wee làmb ja neex na ndeysaan ndeysaan min ngay ki moom la jàpp muy bañ noonu moom min ngay ki nga am Gora Sock ci wàllu làmb Gora Sock jàpp nañ tànk ba Gora mbaa di nga ci génn dinañ ko waaw waaw Gora da ngaa diis la nga bëggoon def mënoo koo def wër nañ ko ndomba laa ilaaha illallah ay wër nañ ndomba Gora Sock ay Gora mbaa di nga ci génn wëlbatiku waaw waaw da daanu min kay ki na caxabal na min kay ki wër nañ ko ndomba moom it wër nañ ko ndomba min génn ay min gay ki doo ci min gay ki war nañ ko ndomba min gay ki war nañ ko ndomba war nañ ndomba min gay ki waaw waaw doo ci daan nañ ko moom min gay ki ndeysaan Serigne Mbaye Diop le maire de la commune Sandiara ndeysaan moo ne noonu Serigne Ngagne Diop le maire la commune lay nuyu maa ngi lay ak Serigne Ngagne relation bu sincère la mu nekk suñu papa nekk euh, maire bu am pas-pas di liggéey ci gox yi gox bu mu yor te boolewu ci benn wax te ñun ñu nekk ay yoo xam ne képp kuy liggéey ci suñ région yi rek ñun dañ lay jàppale dañ ñuy neex aussi ndax amuñu dañ lu dul ci commune yi moom nag commune am bi da ca def des si ma bu baax a baax baax. te loolu ko war a rafetlu ndax ñu dénk la nga doxale nu ñoo ni nga war a doxale yombul bon Papa Serigne Diop gasi nga lama ñu ngi ci quart de finale yi Pakala bu Mbour ak Fils de Batlen Fils de Batlen moo leen féetee ca ndijoor moo ngemboo ngemb lu bula Pakala kenn du ko werante ci làmb moo leen féete càmmoñ ña ngay Pakala fils de Batlen Pakala daw na jëli ko Pakala daw na jëli ko Pakala daw na jëli ko ña ngay leewaatoo fils Pakala Pakala sëq na ca ngemb la lu ñu nar mbokk bu leen fàtte yéen ngi ci quart de finale yi ndaysaan fils de Batlen ak Pakala Ember avancel fils de Batlen Pakala ña nga ca ba tey ñoom ñaar ku ci nekk sëq na ngemb ndaysaan wàllu wee nga am fa tas yaakaar ak caaka fay <laughs> cey lamb tas yaakaar caaka fay fils de Batlen Pakala lamba ngoog waaye mbokk yi bu leen jaawale ñu ngi ci quart de finale yi. leen pakala ñu nga noonu ci compétition bi dox ci digganta tas yaakaar ak caaka fay arbitre ba sifflé na fils de Batlen pakala jël na ko mu bañ fils de Batlen pakala fils de Batlen pakala ndeysaan hey lamb ñoo nga noonu ci quart de finale yi ñoom ñaar dañoo xamante barki démb assurance bu mbuur ba mu ñëwee terrain gaal gi kii di fils de Badlan moo ko éliminé tay pakala ñëwaat na lu mu nar pakala na ko tànk pakala day bañam déet pakala daa bañ naam déet cey làmb dañuy daan ñii ñu nangu ñu daan ñii ñu bañ kële daan nañ ko mu bañ Fils de Batlen Pakala nim la jàppee baax na mbaa di nga ci génn <laughs> cey lamb Fils de leen Pakala nim la jàppee baax na di nga ci génn Pakala Fils de Batlen Pakala Fils de Fils de Batley sol na waaye fee dox ci diggante tas yaakaar ak caaka fay ñu ngay dara amagul jël na ko wucci na mu bañ Fils de Batley Pakala booy fay noonu ci wàll ba moom daan na caaka fay daan na Fils Fils daan na tas yaakaar Caaka Faye daan na tas yaakaar Caaka Faye daan na Caaka Faye daan tas yaakaar Fils de Batlé na des sa Batlé nañ ko daan na ko Fils de Batlé dem na demi-finale daan pakala <laughs> Boy Faye yanu na ba kaw dóor na ci suuf Boy Faye dem na demi final. waaw Serigne bas parrain baa ngi noonu muy Mouhamed Gueye Faye ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay maa leen di fay bu baax a baax. tey bis bi ñu la dara jaal loo ci yëg. Euh, xanaa kontaan contentement bu mag a mag parce que bés bi d' abord euh, ñu ko tuddee dafa rëy mooy le maire docteur Serigne Gueye Diop moom lañ tuddee bés bi mu doon ku rëy mu doon euh, ministre conseil du président de la république ñu tuddee ko bés bi tey mu délégué ma pour ma ñëw assister bés bi. kon loolu mbégte bu rëy lañ ci am d'abord parce que suñu kilifa la un deux organisation bu ñu fekk aussi vraiment dañ cee kontaan fekk fi organisation bu rafet fekk fi aussi ay mbër yu mën lu ñuy def ay mbër yu bëgg lu ñuy def parce que lii aussi culture la cosaan la su ñuy fekk fii lii dañ ciy kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax. la fii nga ñëw yaakaar gi bu mu am ci yow la wala wóolu gi mu la wóolu seen relation yéen ñaar. voilà xam nga ne la docteur Serigne Gueye Diop d'abord man nag moom ay collaborateur lañ ah ay collaborateur lañ am benn confiance bu total bu am sama diggante ak moom am am aussi benn estime bu fort bu am am si moom si man ak moom lépp loo xamante ne daf koy def daf ma ci impliqué à 100 pour cent kon euh, su fekkee ne daf ma délégué tey pour ma ñu assister ko drapeau première édition bu ñu ko tuddee fii nii tey vraiment mbégte la ci man d'abord mais aussi euh, di lancer appel ah di lancer appel parce que comme moom nekk na koo xamante ne dafa bëgg d'abord jeunesse parce que soo ko seetloo ñu ko wër yëpp. 80 pour cent ay jeunes lañ kon kooku jeune jeune moo a am taaga fay ak booy fay fay leen balaa muy fay. <laughs> tey lamb Fils de Batlen ngay am fii ndeysaan ak saa fandu Fils de Batlen moo daan léegi pakala saa moo éliminé Goro Soog ña nga ba wàllu wee ngi am caaka fay ak booy fay ku seetaan da fay waay <laughs> fay am na doole ci lamb ji ndeysaan Faye am na doole ci làmb ci tey Boy Faye daw na jël ko Caaka bañ na Caaka bañ na Caaka Faye Boy Faye arbitre bi àtte na bële dox ci diggante Safandu ak Fils de Batlen arbitre bi sifla waat na Boy Faye jàpp na Caaka bañ na Boy Faye lu nar dañoo daje arène nationale Caaka Fay daan Boy Fay ñu daje waat fii ci terrain gaal gi nu muy mujj Boy Fay Caaka Fay nu ñuy mujje fu làmb ji di mujj kan mooy dem final ci diggante Sa Fandou ak Fils de Batlen kan mooy dem final ci diggante Boy Fay ak Caaka Fay ndeysaan Boy Faye jël nañ ko jël nañ ko génn na waaw waaw Faye da ngaa génn Boy Faye Caaka Faye Caaka Boy Faye Fils de Batlen am na benn avertissement Safando am na benn avertissement cey lamb Boy Faye Caaka Faye Boy Faye Thiaka Faye Thiaka jëlaat na ba Boy Faye doo ci génn doo ci génn doo ci génn Boy Faye waaw waaw doo génn Thiaka Faye daan Fils de Batlen na fële nañ da bopp ba Fils de Batlen nañ da bopp ba arbitre Fils de Batlen daan na dem na final Fils de dem na final Fils de Batlen final fi loo yëg kon luñ naan yëg rek comme li ma la waxoon rek comme lu ñu naan ñu ay xale yu ndaw lañ ñun pour man du dara ci quoi. mu ne la yéen ñaar Adrien Senghor da ngeen a final da ngeen woon final yaag caaka fay mu daan la tey ngeen dajawaat final mbaa dina yomb. waaw comme ni ma la waxoon man moom ku ma ku ma dóor yar bi na ma koy alaat incha allah waaw kese la. ñu xaar jeex na tàkk maa ngi. lay nuyu. maa lay fay. maa ngi lay fay. nga final waat fii ci terrain gaal gi loo yëg. waaw kontaan rek di ñaan yàlla may ma maa gagné final bi rek waaw. nga dajeeg Boy Faye arène nationale éliminé ko dajawaat ko fii ci terrain gaal gi élimine ko seen diggante yéen ñaar lan la. waaw du man suma sek la rek waaw. Fils de Batlen da ngeen a daje final ca terrain gaal gi. terrain Adrien nga daan ko ngeen dajawaat fii final dina yomb. nee na ku ko dóor di nga ko abal yat waaw di ñaan yàlla dooraat ko rek waaw. ndeysaan tàkk. saas. Ah. mbokk yi ñu ngi noonu ci final bi dox ci diggante Abdou Karim ak Babacar Tine Abdou Karim moo leen féetal joor wala boog moo leen won ginnaaw Babacar Tine moo leen won kanam. jël na ko Abdou ak Babacar Diouf Abdou Karim ëpp na ko Babacar da koy motam déet yëkkati na ko door na ci suuf na ko domba doo ci génn doo ci génn Abdou Karim doo ci génn doo ci génn Abdou Karim Babacar war na ak Abdou Karim na ko waaw force na ko mu bañ ba léegi dara amagul mbaa da ngaa nar a rëcc déedéet rëccaat na la ilaha illallah eh xale ba rëcc na Babacar Diouf Abdou Karim Babacar Tine Abdou Karim Diouf ndeysaan Babacar Tine Abdou Karim Diouf sëñ Bas Babacar Tine moo la féete ndijoor Abdou Karim Diouf moo la féete càmmoñ di ci génnaat Babacar Diouf Karim eh ñaari xale yi cey lamb arbitre ci suuf ay waay sëñ Bassa ngay yuuxu arbitre may ñu mbokk yi seetaan Wassare dañoo bëgg ñu am lu leer avertissement Abdou Karim Tine Babacar Diouf Babacar Tine Abdou Karim Diouf kon Babacar Tine moo la wan moom nga jàkkaarloo noonu wala moo la wan ginnaaw Abdou Karim moom nga jàkkaarloo di leen fàtte yéen a ngi jëm ba jël na tànk ba Babacar jël na ko mu rëcc xale yi ñaari xale yaa nga ca làmb ja ba tey ndeysaan Abdou Karim Diouf ndeysaan ak Babacar Diouf jël na ko mbaa dina rëccaat Abdou Karim takk nañ la mbaa dina ci génn mot na Abdou Karim daan na ko eh mot na ko mot daan na daan na ndeysaan maa de Batlere ñu ngi noonu toll ci final bi dox ci diggante Diaka Faye ak Fils de Batlere dimanche 26 janvier 2020 terrain Gaal gi Ngor production moo fi woo. ndeysaan ñoom ñaar ñoo finaalu ña ngay lewaatoo ndeysaan ñu gën ko xam ci maam góor borom góorgóorlu <laughs> cey sëñ Bas yaay làmb ndeysaan ña ngay noonu di lewaatoo dañoo daje woon terrain Adrien Senghor ñu finaalu Caaka Faye daan Fils de ñu daje waat fii ci terrain Adrien Senghor wala terrain gaal gi Fils de Batlen ku ma dóor di ma abal yat bi ñoo final waat fii ñoo final woon Adrien Senghor ñoo final waat fii ci gaal gi ña ngay lewaatoo ndeysaan ña ngay lewaatoo Fils de Batlen day bañ la ko doloon dalaat ko daa dugg ci tànk caaka faye mu suruxal ko noonu la ñàkke woon final bi bi mbaa dina defaat loolu wala déet nañu xool fu waanante di mu jekki gëtam sëñ Bas caaka fay daje naag Bas daje naag ndeysaan ña noonu caaka fay fils de Batlan caaka fay fils de Batlan caaka fay jël na ko si ko caaka bañ caaka ñandu na <laughs> Fils de Batlen Caaka Faye Fils de len Caaka Faye ooy góorgóorlu la nga tëdd góor production Caaka am na benn avertissement Fils de Batlen am na benn avertissement bëre leen bëre bëre baaxu góor la bëre leen lamb fa waaye ku daanu am gàcce Fils de Batlen 64 litres ñoo bindu nga finalu Caaka Faye 64 litres ñoo bindu nga finalu ay jàmbaar ngeen Caaka Faye éliminé Boy Faye Fils de Batlen ndaysaan xale la boo xamante ni champion la ci lamb moo éliminé Pakala Fils de Badlène Caaka Faye da ko doon jëli waaye da koo seen jàppante Caaka jël na tànk ba Fils de Badlène bañ na waaw waaw Caaka Faye daan na ko jël bu rëy eh Caaka Faye Caaka Faye daan na jël bu Caaka Faye daan na jël bu